ñii di waa RSI rassemblement sénégalais contre l'islamophobie daal di nañ métti lu kàddu yi nga xamante ni Ahmed Cissé yëkkati woon na ko jëmale ko ci téere yàlla bi. la mu daanu kenn musul woon xalaat. que ni ci réewu Sénégal mi ak ni mu fonk diine. réewu Sénégal bi ak ni ko àddina respecté. ay nit dinañ fi jog di wax wax ju garaawe nii ci lislaam bu ñu mësula wax fenn ci àdduna loolu jàpp nañ ne lu rëy la ba tax na te li ko tax mu gëna rëy mooy kuy askanewoo ci lislaam mooy ki nga xam ni moo ko def bi yoon muy ku nuy wax Ahmed Cissé ci benn jokkuwaayu xabaar def wax ju ñaaw ci lislaam wax ju ñàkk teggin ci sunu boroom woyofal lool lii nga xam ne moom la jullit ñi gëm ak yaradiku goo xam ne nit musu ko mas xalaat ci noonu ñi ngi woo nguur gi ak jàllalekatu xibaar yi ngir ñu jug si lii waaye itam xoolaat ana kan lañ a tàllal micro noo ngi woo boroom réew mi walla njiitu réew mi ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ak moom muy état ñu ngi koy woo ci mu génnee ay loi yoo xam ne yu diis la bu ko defee képp koo xam ni yaa ngi ñàkk teggine lislaam bi yaa ngi wëlbati am jàngaleem di ko fowe am lu mën a dal ci sa kaw ci lu gaaw noo ngi woo kilifa yi nga xam ne ñoo yor tas tasukaayu xabaar yi ñoo yor plateforme yi te di ci jëfandikoo lislaam ci ay émission ñu bàyyi xel ci émision yooyu bon contenu la ñu koy jox ñu découragé soriyel ñépp ñi nga xam ni wutu tur walla yeneen moo leen tax a jóg lu mooy jàngale lislaam ak wane ko ci taaram ñu soreye leen ci kër yooyu bu ko defee dana nu aar sunu réew ci lii nga xam ne mën na jaare ci buntu waxinu diine wu juunu bee féewale xol yi juróomeel bi noo ngi woo jullit ñi ñu gën a ubbi seen bët gën a bàyyi xel ci lii nga xam ni daanaka mën nga wax ne ab complot la boo xam ni ñoo ko def jëme ko ci lislaam ngir seddale jullit ñi te yoon wi nuy jaar bokk na ci waxin wu juunu ci lislaam lii bu continuer model bi nga xam ne mooy bu Sénégal te mooy ànd dund nanguwante ci jàmm même bu fekkee ne am nañu ay gis-gis yu waroo ci lislaam bu ñu bàyyiwul xel ci lii xew modèle boobu mën na daanu te bu daanoo dana yàq lu bari ci réew mi juróom-benneel bi noo ngi woo autorité yi li ñu am ci sañ-sañ yépp ak li leen yoon may ak déggoo diggante réew yi yi mu leen may kii nga xam ne moo di Ahmadou Cissé fu mu mën a nekk ñu jëli ko andi ko ci réew mi atte ko teg li nga xam ne moom lañu ñu war a teg ci kawam ci daan bu ko defee mu doon bind ci képp koo xam ni foog na ni lislaam bi tool la bu ñu ubbi bu amul lu ko aar lu neex waay mu def ci gannaaw loolu borom bi subhaanahu wa mooy aar diineem moom moo wax ni ñoom dañu bëgg rekk ci coow lu bari ñu fay làmpu lislaam bi nga xam ne du fay ba fow nee na yàlla am na ci xarañte am na ci man-man am na ci doxalin loo xam ni bu jullit ñi sàgganeetam moom dana ar diineem ba leeram jolli ba yegg fa mu ko bëgge wa jazakumullahu xayran